salam gars gay ñu na leen dalen ak jaamu ci sana Sport ans dañ koy doore ak kiti xibaar bi di record dafa xey ñew ci suñu gaynde yi nga xamna ñu ngi wajjal seen match bi wara am seen digënté ak Algérie ak Rwanda Cissé nak di waaj a li nga xamne moy ab liste mu commencé dafi jangatam di gis ne kat jamono bi bu ñu suñu équipe bi amna ay yeesal yuñ ci wara amal waye nak mu tambalé ko ci Lamine Camara ak Idrissa gane Gueye mëna mbaadu ben numéro 5 bi dina neub benen bi ndax kat bu ñu xoolee Idrissa gane Gueye moy numéro 5 équipe nationale A Lamine Camara moo doon numéro 5 ci li nga xam ne mooy u yi voilà muy ñoo xamante ni dañoo xaw niroo poste bi ñuy football ak nañuy footballé Lamine Camara di xale bu ndaw Idrissa Gana Gueye commencé mage mbaadu kenn ki dafa nëbb kenn ki maanaam mën nañu gis ne Idrissa Gana Gueye xëj na moo war nëbb kii di dégg maam Lamine Camara xeeñ ko place ci li nga xamante mooy équipe bi bu fekkee Cissé wéy na di ko gëm wala Lamine Camara dégg maam ñëw jël place ki nga xamante ne beesal yoo xam ne war na koo def ci li nga xamante ne mooy ci digg bi ñu xoolee jamono bi mën nañu wax ne Edouard Mendy moom commencé waat na di jouer ki nga xamante ne mooy Alfred Gomis delluwaat na ci banc ba gannaaw ba ma jógee Italie ba delluwaat ci stade Rennais li mu gis mooy jamono bi ki nga xamante ne mooy Mendy moom la séentu ab retouram ki nga xamante ne nag mooy dégg Alfred Gomis moom dafay xaar ndax jamono bi amul li nga xamante ne mooy temps de waaye tam mu ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllum euh, Guédiawaye football club yi nga xam ne seen euh, sélectionneur wala boog seen entraîneur bi dafa dal di dégg nga maam euh, démissionné muy kii di Souleymane Diallo léegi nag ñu séntu ki nga xamante ne mooy Mbaye Badji ki koy wuutu ci équipe boobu la mooy doon coach bu yees ci bangu ñi nga xamante di Guédiawaye football club kii di xibaar bi di ba tey ci loolu la ñëwaat ci wàccaay match bi waaye itam ñëw ci Al Nassr bi nga xamante ni moom jamono bi dafa am ndorteel gu metti ñaari match ñaari défaite léegi nag ñuy séntu Sadio ak àndandoom ñu amal li nga xamante ne mooy ak yeewu wuute delu ci wat ci tang tang bi manam dal gañu gañ yoy ñu am di ci rek lool mu dal di arrêté ganna bi nga xamé né kat gis nañu né war nañu mëna a al sabab ak al ahli abdou diallo mom tam dina amal li nga xamante moy mooy débutam foofu la ci qatar ak clubam bu yes bobu nga xamante moy al arabi voilà mom bi mu fa signé yagul dara man nañ wax ci semaine lay tollu dina tambalé li nga xamante moy mooy maam football ak équipe bu yes bobu boobule pap matar sar mom taxna ba équipe bu tottenham bi vestiaire yi ñepp d'accord accord nañu gannaaw prestation yu am solo yi mu amal contre manchester united fimné ni ñepp nangul na nangul nañu ki nga xamanteni moy Pape Matar sar fala mom mom boss la wara don jamono bi ci li nga xamanteni moy équipe bobu loolu nek mbir mo xamne batay kayiti xibaar bi dal dina ci ñew bu ñewé ci li nga xamanteni mu ay ci walum transfert ki nga xamanteni moy euh, buna sar ñu ngi sentu ne mom dana joggé fofu nga xamanteni moy ci Bayern mu jamono bi dal ci li nga xamanteni mom lañuy liggé ñom wa Bayern ak yi buna sar moy fexé naka lañuy takalé ko la bala marché bi di tej manam dal di dag contrat bi comme dess na ben at buna sar man dafa dess ba deewon waye ku ne xamne footballul mom bu mu fay jëwé ba légui ci euh, ñaari at

mom jamono bi kon centu nañu ne kayit yoy mu doon toppatoo lepp dal dinaay mat manam xagn dafa amone jafe-jafe yo xamanteni mo na ci walum papier la ba taxone warul won meuna jouer ak équipe bobu di Barcelone légui nak loolu dal dinaay de nga maam mom da fay delu ci Barça te japp nañu ne xagn na mën na am sans sax jouer ci dimanche bi ak li nga xamanteni moy équipe réserve bu Barcelone gëna bi nga xamanteni mom do ragul sax li nga xamanteni moy saison ki nga xamanteni nak mom moom wax Seydou Sano mom nak dafa signé ji won fofu la ci Braga bu yagul dara ci Portugal waaye ay weer kep la fa def jamono bi mu nga wutali Qatar wala kon loolu dafa nek loo xamante ne nañu euh, mu ngi ñëw dégg nga maam sotti ci Al Garafa lay dem signé ji kii di Seydou bi nga xamante mooy ca Qatar ca def football club signé nañu gardien bu yees gannaaw bi nga xamee kat jamono bi ñoom euh, seen joueur bi li nga xamante mooy Kepa moom dafa dem ca Real Madrid dañu ko faa able maanaam léegi nag comme noonu la demee moom ki nga xamante ni mooy Kepa dem ñu dal di koy able pour na ñoo xam ne dañuy taxawee liggéey bi voilà jamono bi moo tax ñoom am nañu a indi nga xamante ne moom la ñuy wax Georgi Petrovic nee nañu lu toll ci 16 millions d'euros moom la ñu def ci li nga xamante a xamante ni nag mooy Benjamin Pavard moom dana dem foofu nga xamante mooy ci Inter de Milan nee nañu dee déggoo am na ci diggante Inter de Milan ak ñi di waa Bayern voilà légui nak ñu ngi sentu ki nga xamanté moy Benjamin Pavard ci Alarba bi wala alxames bi mu ñëw amal visite médicale su ko défé mu daldi di dem signer li nga xamanté moy contrat bobu ci Inter de Milan wala nek ci Serie A bu Italie ki nga xamanté ni nag voilà mooy milieu de terrain bi nga xamanté ni euh, moy euh, dafa daldi di dégg ma marqué bit ni ki demb ak équipe bobu yele di Rayo Vallecano gëna bi nga xamanté dafa dugg ci li nga xamanté moy mooy second mi-temps bi mu duggé dal ñetti minutes képp la ko jël mu daldi di ubi axi mom ki di Pathé Ciss bi nga xam ba bayu ñuy waxee Olympique Lyonnais bayiwuñu ko ñong koy top gëna bi ñu ko bëggi woon ki dem ba ca cappaandaw ga mbir mu yàqu mu meroon ci am lu mu ci waxoon sax ba ñu jàppoon dina indi ay rëq-rëq digganteem ak dirigeant club boobule gis nañu nag léegi moom daanaka li muy titulaire dañu koy teg ci banc bi waaye daal moom saa yu duggee danañ xam ne yegsi na démb dafa dugg rek dégg nga maam Greenwood di gone gu xarañ gu mën football gii ca Manchester United nga xamante at yi dafa nekkoon ci jafe-jafe gannaaw ba ñu ko yóbbu ko ci yoon ñu dem di mujj koo setal mu ñëwaat nag tax ba ñu bëri di ko siise ne bëgg warul duggaat ci équipe boobu di Manchester United ñu bëri dañoo siis bañ mu ñëwaat ak yi nga xamante ne xew na ci yëpp ba tax ba boo ci ne mooy Greenwood ak football kon ci équipe boobu voilà déggoon nañu moom dafay dem feneen dégg maam leneen su ko defee ñoom waa Man United ñu continuer ci la ñu ne ñu bëri nag ci supporters yi am ci naqar waaye nag loolu jàpp nañ ne na mooy li gën ci équipe bi gën ci moom ndax kat jamono bi gannaaw jafe-jafe yi mu jógee voilà moom dina dem feneen kon dal dafay wéyal li nga xamante ne mooy carrière am ñaar fukki at ak benn képp la am ba fii ñuy waxee xaale la léegi nag nee nañu ci Arabie Saoudite moom mën na fa am chance ndax bu ñuy xool jamono bi am na équipe yoo ne ñu ngi ko fay woo bokk na ci Al Ittifaq bu Steven Gerrard Steven Gerrard ancien joueur Manchester euh, Liverpool bi nga xamante ne jamono bi mooy tàggat équipe boobu di Al Ittifaq ñu ngi fa ay mbokkam mi ngi foofu ñooñu nag bëgg nañu ko te pare nañu ko fay lu toll ci dix millions de livres sterling par at maanaam at bu jot léegi nag leer nañu am na itam yeneen i club yoo xamante ne ñu ngi foofu la ca Saudi moom ki nga xamante ne mooy voilà euh, kii di Mason Greenwood kon loolu mooy li nga xamante ne moom la kayiti xibaar yi xëyee tey jële gannaaw jafe-jafe yi mu jógee kon mën na dem foofu la ca Saudi Thierry Henry moom la ñu dénk équipe bi nga xamante ne mooy U21 bu France moom mi nga xam ne jamono yi gisoon nañu ko fi mu nekkoon adjoint bu Martinez foofu la ca Belgique am nay jaar jaar daal jaar na tam fu mel moom dafa nekk entraîneur bu u bu équipe nationale bu France signé na contrat kon bu koy yóbbu ba deux de moom moo leen yóbbu sax ci li nga xam ne mooy olympique bu deux bu u bu France ki nga xamante ni nag mooy Kylian Mbappé jamono bi ñii di Paris Saint-Germain ñu ngi xaar Real Madrid ñu def offre dal di koy signé ne nañu day ñi di Paris Saint-Germain ñu ngi xaar offre bu toll ci 163 milliards 750 millions de francs CFA lool xaaliss bu bari la di mom la ñi di Paris di xaar 163 milliards yu tégal weccet manam mom la ñuy xaar ñu dal di koy tek gir signé ki di Kylian Mbappé te ñi di Real Madrid yi nga xam ñom la ñu doon dégg mam gëna dégg ci mbir mom ba fi ñëwee xëna nañu nañu defaguñu offre amna na di xibaar yi gëna di xam la né ñom wa Real li nga xam moy seen yéene moy baye bañ ñi dem ci dernier minute su ko défé ñu def offre ba xam ndax ñi di Paris dañ ko nangu am déet légui nak ñom Paris ñom li ñuy xaar

ak Eintracht Francfort ci foofu la ca Bundesliga bi léegi nag gars yi ñu ngi wéy di waxtaan xool ba xam naka la ñuy def ba daal di complété signature kii di Colomboani gannaaw bi ñu indee kii di Ousmane démbale